أحمد ربي على كتابه الذي على كل كتاب بالنسلة بك الكلي وبالفم بسم الله الرحمن الرحيم سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته mbokki julli ji rawatina mbokki tali bi ñu ngi leen nuyu baat di leen siyaare ci barab bu tedd bi di biir kër Serigne Touba Serigne Saliou Mbacké Ndindoul Khadim ci kees gi nga xam ne mooy kees Serigne Modou Ablaye Fall te moom mooy barab biñ ko mujjee gisee tegal ko tegal ko bët di ñaan suñu borom yokk ay leeram fa nekk ci barkeb sëñ Tuubaa Xadim yàggal fi jëwriñ ji nga xam ne mooy jëwriñam muy sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacké yàlla na ko yàlla yàggal te wér ko moom mboolem ay nga xam ne moom la daan joxe moom la joxe waat muy bàddale teele Xelkom ak Touba Daaru Salaam Daaru Tansil nga nga xam ne moom lañ daan wooyee Maodo Murit féete ci penku ba na ko ñëpp bàyyi xel ak Lagan ak Touba Daaru Salaam ak Daarul Muhin Jësbul Xoloob Daaru Sakoor tubaa Daaru Xudus loolu mooy daara yi nga xam ne moom la ñu fas yéene mu toll ci juróom-ñeenti daara mbokk yi ñi nga xamante ni ñooy suñ jëwriñ yi suñ ginnaaw di suñ jëwriñ ñu tedd baax lool taxawu liggéey bi naka jekk ñi ngi siyaar baax sëñ Abdou di ko ñaanal jàmm ak ku wér nga xam ne mooy jiite dongoy tar bi yëpp sëñ Moustapha Guèye moom la ñuy jox kaddu gi moom mi nga xam ne mooy yor xeetu wote itam ak wàllu wàllu gasoil bi dina jël kaddu insha allahu taala di xamal mbokki taalibe yëpp ak mbokki jullit yëpp lii nga xam ne moo ñu fi indi muy liggéeyu Xelcom bi ñun ñii nag ñoo jiite wàllu liggéey bi di ci woo ñëpp rawatina sun mbokki transporteurs yi ñi nga xam ne ñoo amee oto ñu ngi woo it mboolem taalibe fu mu fi mën a nekk ñu ngi lay woo si liggéey bi di leen xamal ne li ñu soxla ñun ren jii ci ab liggéey lu mu néew néew day ëpp ñaar téeméeri oto gaasuwaa di lu mu néew ne danañ ci soxla fukki junniy liitar loola nag moom la ñuy laaj ci mbokki taalibe yi nga xam ne ñoo ñoom ñoo bokk pas ñu ngi leen di yëgal liggéey boobu daan ni sëriñ bi jox ñu mu doon liggéey bu yaatu ndax ñeenti daara lañ doon liggéey léegi àgg na ci juróom-ñeenti daara kon na xam nañ li liggéey bu yokk la waaye nag sëriñ mbirum sëriñ Touba ci boppam tànki kanam la yor yorut tànki ginnaaw at mu jot day gën a yokk kon nag na ngeen xam ne lu waaye di joxe ci oto wala mu di ko joxe ci gaasuwaal na jël numéro bii ma leen di jox na jël 60 78 473 10 10 képp ko am addiyee joo xam ne moom ngay joxe mu jëm ci gasoil man nga koo def ci loolu koo xam ne nekk oto la boo xam ne nii dañu ci dimbali loolu mën ngaa woote ci 77 640 24 73 loolu daal mooy soññe gi nga xam ne ñu koy soññe nii ci liggéey bépp ñu ngi sant ñëpp tey ñaanal ñëpp di wax leen nañ ci am pas-pas ñun ñëpp it fas yéene amee ci ngërëmul sëriñ bi ca ñaanal ci sëriñ Saliou suñu borom dolli leerame barke sëriñ Saliou jërëjëf. mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbooleem donga tarbiya yu wetu ndakaaru ak li ko wër ak soppe yi ak waa Louga ak waa Ndar ak waa Mboora ak waa Tiwaawan ak waa Bambey ak waa Xombal ak waa Touba Toul ak waa Daaru Ndiaye ñoo leen di liggéey yëgal liggéeyu Xelcom bii nga xam ne moom la Serigne Cheikh mu yu Saliou Mbacké yaa jëlaat teg ko ci loxob mboolem donga tarbiya yëpp kon ñu leen yëgal ne liggéey boobu le 26 novembre lay doon ñuy ajjuma ñu leen ko yëgal mbool mbokk taalib yëpp ak mbokki jullit yëpp di leen yëgal ne départ bi nag Colobane lay doon ci kër Serigne Touba gi de matin jotee di ci sàkku teewaayu ñëpp liggéey bi nag li koy sottal mooy lu mel ni ay fourchette lu mel ni ay rato ak lu mel ni ay saako ak oto yoo xam ne dana mën a roñ ngooñ mi ak gerte gi képp koo xam ne nag bëgg nga ci ay leeral mën ngaa woote ci numéro bii muy 77 143 21 21 77 143 21 21 ñi ngi sàkku teewaayu mbokki taalibi yëpp ak mbokki jullit yëpp ci seen jëf ak ci seen pas-pas ak ci seen yéene ñaan suñu borom yóbbu ñu ci ak jàmm te ñu dajee ak tawféexi sëriñ bi ak dimbalam barke sëriñ saali ñu ngi nuyu ñëpp ni ñu ni seetaan di wax ci turu mbooloo mi nga xam ne ñooy bokk di dal Touba Xelkom euh, di ci jiital waa Njaareem ñi nga xam ne ñoo ko ànd ak ñëpp. ñu ngi leen ci soññ di soññ waa Thiès ci turu sëñ Pape Diop mi ko jiite waa mbuur ci turu Serigne Bara Diakhaté waa Kaolack sëriñ El Hadj Sini Tall waa Gambi Serigne Aliou Cissé ak Serigne Abdou euh, Seye ñu ngi woo waa Casamance ci sëriñ turu sëriñ sëriñ Basirou Ndiaye waa piir ci turu sëriñ ab Gora ak li ko wër waa nootu guy jamaa ci turu sëriñ eh, Omar Ñing ñu ngi woo waa Linguère ci turu sëriñ maam sëriñ Cissé waa Tubaatul ak tund Bawol gépp ci turu sëriñ Mbacke Diouf waa ngaaw ci njiital sëriñ eh, Modou Bousso Ñing di woo waa Kokki ci turu sëriñ Modou Anta Bousso waa Daaru Sakoor it ñaa fa nga xam ñoom fay daal ñu ngi wax ci seen tur ci njiital Serigne Khadim Seck ak mbooloo euh, biir Dakar ak Mbour ak fii ci Touba ci njiital Serigne Alaaji Bey ak mbooloo mi ñi nga xam ne ñi ngi daan seq liggéey bi ci liggéey bi ci ci ci xelkom ñu ngi leen di fàttali date bi jàpp nañ ko kon mooy li ngeen di gis ci écran muy daw ñu ngi ñaan suñu borom defal ñu fekk jàmm ak salaam tam tawfeex man coo jëfenu kay suñu jot barke woon Touba mbokk yi ñu ngi woote ci jëwriñ turu sëriñ Sëñ Ibrahima Ndoye mi nga xam ne moo féete diwaanu Touba ak mboolem di ko wër ci ñi nga xam ne ñoom la daan seq liggéey bi ñëpp lu mel ni kuréel yi nga xam ne daan ànd ci moom te boot ci moom war a dal lagan ak xelkom Darou Salaam Daaree Diis sëriñ Alhaaji Bousso sëriñ Lamine Kane sëriñ Soñ bu Saar ak it sëriñ Mourou Mbacke mi nga xam ne war naa ànd ak ñañam ñi nga xam ne war na noo ànd fekk ji sëriñ Mujj Jóob Touba Darou Salaam Maoda. bu ko defee di soññe bu baax a baax ci ñi nga xam ne ñoo war a dem Lagan ci turu sëriñ Mamor Kan ak sëriñ Abdou Lahad Mbacké moom sëriñ Saliou Njurul ak sëriñ euh, Bada Fall mi nga xam ne mooy saytu lépp lu jëm ci kuréel Baye Fall ñu war a féete foofee ca Lagan képp koo xam ne bëgg nga ci ay leeral boo jokkoo Baye Sidou Souare dina la ci indil ay leeral départ mi ngi amee fii ci kër Serigne Saliou ak Corniche képp ku ci bëgg ay leeral moo xam ni nga xam ne daan nañ am xalaaxa bu rafet sëriñ soñ bu daan ci barkeelu ay oto wala gasoil ak lu mën di doon ak it ñi nga xam ne ñooy bëgg ay oto ngir ak leeral buñ jokkoo ak Baye Sidi Souare mi nga xam ne mooy at soñ sëriñ soñ bu rek wan doy daal leen ci indil ay leeral 76 335 74 35 di soññu nag mboolem kuréelu soppe yi nga xam ne ñoo nekk ci diggante Touba ak Mbacké te doon fédération bu am doole bu am solo boo xam ne liggéeyal sëriñ sa rek moo leen ñor ci njiitul sëriñ Massamba Lo coordinateur ak ñam ko àndal ñëpp ak man mii di wax ak yéen képp koo xam ne rek bëgg nga ci ay leral boo jokkoo ak sëriñ sàmba dana la ci indil ay leeral incha allah rabbi euh, ñi ngi jël kàddu ci ndigalu sëriñ Abdou Ndiaye di wax ci toolu tubaa daaru Salaam ñu koy dàkkantele Maodo Mouride xam naa man fi ma ciy teg ab joxoñ rek mooy ñu bari dañoo umpale Touba Darou Salaam ci fi mu nekkee ak yoon woo fa jëm euh, ku miin wala wala jàpp naa ne sax ñu bari miin nañ xelkom ci wenn yoon wi la boo jógee xel xelkom boo demee ba xel xelkom nga jóge tubaa xel xelkom jëm daaru xel xelkom di nga gis ni am na rang bu nekk ci diggante bi rang boobu noonu mu ritaxe noonu la ritaxe ba biir tubaa daaru salaam yoon wi soriwul dafa ruqe woon te ubbeeku na ndax sëriñ bi defaral na ko aw yoon boo xam ne oto yu ndaw yi mën nañ faa daw cent dix cent vingt ba cent trente kon woowu yoon na xariwul digganteem ak Touba cent trente cinq kilomètres la kon soriwul euh, li ci des nag moom soñee la sama soññee day dugg ci biir euh, jëwriñ yi nga xam ne ñoo ma jiitu rek di soñ mbokk yi ci daan dem ñëpp di ci tàllal loxo mbokki jullit yëpp ak mbokki taalibe yëpp. numéro bi moom 77 577 37 03. 77 577 37 03. ki ga xam ne mooy tëj kàddu gi nag mooy sëriñ Abdou Ndiaye mi nga xam ne mooy jëriñ dongay tari bi yëpp incha allah. asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyee ci kàddu sëriñ bi te di leen jottali ndigal li nga xam ne daan nañu ko digal te feddaliwaat ñu ko loolu mooy liggéey bi nga xam ne day am ci xel kom ak Touba Darou Salaam Murit ak Lagan ñu ngi ci woo jullit yëpp ak soppe yëpp rawanteeti nag suñu mbokk yi nga xam ne ñoo nekk ci diaspora bi féete bitim réew. liggéey bi nag du dara lu dul baddali mooy tàqatle gerte gee ngooñ mi li koy def mooy fourchette ak rado ak xott saako ak ay wata ak dund bi nga xam ne mooy sawarloo ñi koy def sëriñ bi nag doon na wax ni nit ki de saa boo xam ne mu ngi woo nit ki ci ndigal tuyaaba ji ci moom mi koy woo rek lay dellu ki ko xamut du ko nangu waaye bu ko xamee bëgg ko saa bu ja tàbbee nag lu mu ci defaat njariñ la ca moom rek lay dellu kon ñu ngi ciy woo ñëpp ak fu ñu mën a déparé daara ji leen yebal fa leen digal la nekk wasalaamaaleykum wa rahmatullah woote baa ngoog ndigal li nga xam ne moo bàyyi ko sëriñ si Ahmadou Mbacke yàlla na fi yàgg loolu tànn ku wér ñu fas yéene baddali tool yi tool yi Xelkom yi Touba Darou Salaam moo nekk Maodo Mouride lañ ko daan woowee ak Darou Tansil ñoo nekk ca penku ba bu dee Xelkom Darou Khoudoss Darou Salaam ak Touba Xelkom mooy ñetti daara yi daara yi ne ñoo toftal ci wet gi mooy Darou Sakor Darou Mouhine ak Jasbul Xulub loolu mooy barab bi nga xam ne fa la ñuy liggéeyee Laganit ca la bokk moo féetee Bër Saloum kon loolu mooy liggéey bi ñi ngi ñaan suñu borom defal ñu jàmm ak sutura ak tawfeex yoon yi lewate seddu guy fu waay mën joge jóge ñu dem ci jàmm waaye nag ñi ngi fàttali li nga xam ne mooy xeeti mbuus yi bu fa kenn bàyyi benn mbuus mbuus yi nañ ko dajale benn ñu lakk ko maa ñu def ko ci ay mbuus def ko ci ay yenn saako man ko indi ci barab yi bañ koo bàyyi ci tool yi ndax bokk na ci li yàq ci jur gi ak li yàq tool yi loolu tam ñu ngi koy ñaan ñëpp wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh